maa ngi fi ak euh, soxna aji aji maa ngi lay ziar. waa Baye Dos maa ngi lay delloo ziar bu wér. Euh, j'espère que yaa ngi si jàmm bu baax a baax. waa ñoo ngi sant bu wér. donc mbokk yi lay déglu présenté wul aji euh, bu Pape Djibril Fall wala aji <laughs> bu Sonko wala bu Macky. <laughs> waaw salaamaaleykum la région de Diourbel. Mm-hmm. alaikum, le département de Mbacké mais alaikum, Sénégal mm-hmm. le monde entier les Sénégalais de la diaspora mm-hmm. man la maa aji fekk depuis Mbacké responsable politique des serviteurs le serviteur donc aji euh, laataa ñuy commencé rek euh, su ma jumul yow Pape Djibril Fall ngay soutenir waaw idéologie Pape Djibril Fall moom laay soutenir vision aussi moom laay gunge d' accord gis euh, rek pour ñu dem ci question bi rapidement dañuy wax ci xew-xew bi nga xamni ni na kérok feul ci marché bi nga xamni ni ñi ngi ko don euh, def feul ci place de la nation ngir euh, jéem léral indi walum njuuj dañ mi am ci copar yi nga xamni ne joxe woon nañ ko ci côté Covid bi ñu gis sen leader ni ko waa def manam yu yuuxoo ak sax mom wax na ni dañ ko bëggoon assassiner quoi mm-hmm. donc lolu noko ko waaw. d' abord damay wax nan laa ko jàngatee d' abord. Mhm. doog su mën a joxe sama xalaat. nan mhm, nga ko jàngatee kon avant réew. Mhm. ñu am benn problème boo xam ne dafa laal nit ku nekk. ci néeg ba nga nekk ci kër ba nga nekk ci gox ba nga nekk. ci département bi nga nekk ci région bi nga nekk. ci commune bi nga nekk. mu nekk un problème de tout Sénégalais. société civile jóg. mu ne comme ñun bi dañu jàpp ne. dañ ñoo tooy ndax am na ñoo xam ne ñu ngi xalaat ne dañoo luubal. suñu alal jaawale suñu poche. Mhm. kon nañu jóg suñu droit la. ñu mhm. waxal notre président de la république. Mhm. moom mi nga xam ne c'est le de la constitution. pour lii kat mu indi ñu ci ay leeral yu wér. bu dee dañoo lekk te mën a fay ñu fay. bu dee dañoo lekk te mënuñoo fay. yoon dal seen kaw bu dee lekk ñu it mu leer. ba tax nag ñu ne comme politiciens yi ay leader lañ. yoo xam ne dañuy eggale xalaatu askan bi. Mm-hmm. jafe-jafe askan bi vision askan bi débatu mm-hmm. askan bi mm-hmm. kon manifestation mënuñu ko def te invité wuñu leen loolu moo waral ñu invité sama leader muy Papa Djibril Fall honorable député bi ñu ko invité mu jugee nécessaire présence am foofu parce que ku ne je suis avec le peuple peuple bi ñoom ñoo gouverne ñoom ñooy sama chef ñoo may fay weer kon bu ñu wootee ngir peuple bi war ngaa jóg ba mhm. tax mu tànn ay ñooñ ànd ak ñoom ñuy ay kilifa ci les serviteurs mhm. ba ñu eggee ñu gis ne une partie de la population mhm. une masse de cette population présence am daf leen dérangé naka la ko jugé ñenn ñi dañu wax ni Papa Djibril dafa am ay nitam yu nekk ci réseaux sociaux yi di lynché seen seen seen leader muy le président Ousmane Sonko le président du parti Pastef mhm. ñeneen ñi daal di Papa ko mu analyser ak léegi mhm. si que Nous mhm. ñu jugé le leader ñu am nous ko Nous avons ba tax ñu sama xalaat ci mbir le président Ousmane Sonko parce que nous tudd nous ay sénégalais lañ ay citoyens on respecte mais nous, nous koy tudd nous avons

wala firnde bu leer mhm. ne Papa Djibril kat président Macky Sall la àndal mhm. wala moom moo ko gunge mhm. ma ciy woowaat interpellé ñëpp nañuy moytu tuuma nañuy moytu spéculation nañuy moytu wax du ñaaw parce que politique kat ci dugg pour defar la waaye cër dugg ci pour ñuy am een wala ñuy ñàññante wala ñuy xawante sutura d' accord euh, di fàttali kooku mooy euh, ma aji euh, mu nekk les serviteurs fa maanaam mu nekk fii ci Mbàkke and ak Pape Djibril Fall mais tamit euh, est-ce que tamit du du du touma gi ñuy tuumaal Pape Djibril Fall dafa and ak euh, Macky Sall est-ce que du lool tamit mo firndeel li yëpp tamit euh, lool noonu soxna si. waaw Baye -hmm. bu lool moko moo ko undu mhm. kon damay wax le pays va mal te dama naan leur est grave. -hmm. parce que tay bu fekkee le président Papa Djibril Fall des serviteurs. Mhm. damay def différence waa parce que nous n'avons actuellement qu'un seul président de la République muy Macky Sall képp ku ñu ci toftal président. Mhm. président mouvement mouvement wala président parti moom nga doon. Mhm. tey bu fekkee dafa toog à la télévision. Mhm. di liggéey liggéeyam na mu waree. lu xew ci réew mi mu wax ci. Mm-hmm. luy jàmbat mu eggali ko luy ubbi gëtu askan bi mu wax ko ba suñuy gët ubbeeku mm-hmm. mu jouer un extraordinaire ci jeunesse bi mm-hmm. jouer un extraordinaire ci mag yi képp ku yaakaaru ni politique c'est une politique politicienne Papa Djibril xamal na la ne politique jaamu yàlla la bu fekkee defee nañ ko ci anam ba mu waree kon ku ci nekk war ngaa jóg ngir apporter ta pierre à l'édification du pays parce que ndaw

ku ci nekk da ngay gis ne kii kat ci man la féete mm. kii kat mm. man lay jàppale kii kat nangam foofu naagu dafay am mm-hmm. yow lay jàppale parce que mm. tu fais partie du peuple mm-hmm. yow lay jàppale parce que tu es un citoyen de la nation sénégalaise mais mm-hmm. tey bu duggee ci langue politique bu dénoncé nga ni eh kii daf ma compte ki nga xam ne peuple bi la taxawal soyons sérieux

d' accord waaw euh, loolu tamit euh, soxna si dëgg la di fàttali ne ba tey euh, ma aji maanaam mu nekk les serviteurs dëkk fii ci Mbàkke muy jàppale Papa Djibril Fall mais tamit maanaam keroog li nga xamante ni am na jour boobu noonu bi mu amee après gis nañ leader Pastef Ousmane Sonko def benn poste maanaam di naqaru loolu mais nag Papa Djibril Fall mu seetaan nañ ko télé mu ni ñëpp woo nañ ko ba mu des Ousmane Sonko. waaw man euh, euh, PDF ñëpp woo ko ak ñëpp bañ ko woo man benn jàngat laa ci am parce que aussi. Mm-hmm. man bëgguma rek nit nga ànd ak nit nga fanatique nit da ànd ak moom raisonnablement. Mm-hmm. Pape gis-gisam la wax. Mm-hmm. man ma am tamit sama gis-gis sama gis-gis mooy. quelque soit alpha ak lu mën di xew même bu kenn woowutoon Pape. man je sais que pape bi ñu xam mhm. bi nga xam ne yàkkim lay demee bi nga xam ne imam lay demee mhm. bi nga xam ne politique daf ci dugg pour mu bañ a soppi jikkoom mhm. mais dafa dugg ci politique pour mu faire renaître les bon valeurs yi nga xam ne suñu diine yi muy l'islam muy le christianisme moom la ñu ñu jàng ci livre saint yi pape dafa dugg ci politique pour renaître les valeurs yi nga xam ne suñu cheikh yi muy cheikh ahmadou bamba muy El Hadji et tant d'autres tan d'autres de la religion musulmane mm-hmm. ñooñu valeur yi nga xam ne indi nañ ko fi ñu mm-hmm. koy fàtte Pape dafa bëgg valeur yooyu renaître mm-hmm. parce que bu ñu fàttee Seydina Mouhamed képp mhm. ku xool jaar-jaaram mhm. ay sahabaam da ngay gis dañ ci gis jaar-jaar boo xam ne nit ki toujours lu négatif mhm. dañ ci jéem a lu positif ba tax loolu moom moo tax l'islam am benn benn benn benn taar bi nga gis le christianisme nga gis Jésus Christ ni mu doon doxalee ak disciples ni mu doon doxalee ak nit ñi pour indi leen ci religion bi lépp nga ciy gis teraanga lépp nga ciy gis beauté loolu nag courtoisie moom moo ko may courtoisie boobu mhm. mënoo ko am tant que gisuloo lu négatif te mhm. positif mhm. kon man sama jàngat mooy même pas bu ko kenn woowu tool ñun dañuy am mbégte am contentement xam nga lu tax parce que dañuy xam ne ñun masse bi nga xam ne ñoo ngi koy éveillé am na ñoo xam ne ba tey dañu inconscience ba tey yeewooguñ te ñooñu nag ci suñu njaboot la ñu bokk mhm. ci Sénégal gii la ñu bokk mhm. dëkk bi nga xam ne c'est un pays traditionnel te mhm. ay valeur am moom moo ko ko jox kon ñooñu war nañ amaan ñu benn éducation boo xam ne bu volontaire boo xam ne ñun war nañ ko def ci masse boobu ba Sénégal gépp bokk di xalaat xalaat bu rafet di jëf bu rafet di mesurer aussi les conséquences yi nga xam ne mën na ci mën na ci dolli ko parce que kër goo dem fekk fa un Macky Sall fekk fa un Sonko fekk fa un PDS fekk fa un Karim bu ñaawee rek mën hmm. hmm. jaajëf fa ah, maa ngi lay euh, kontaane bu baax a baax si disponibilité bi nga xamante ne am nga ko te di xamal ni incha allah euh, di nga ñëw bokk ci euh, di nga ñëw fii si plateau bi ñu gën a yaatal. donte tey liñ la euh, soxla woon mooy euh, ci parenthèse boobu noonu muy euh, li nga xam ni xewoon na fële ci place de la nation mais incha allah aji di nga ñëw fii ñu gën a yaatal maanaam ci si si seen parti bi ak li programme bi nga xam ne yéen a ngi koy doxal sa kàddu yu mujj rek looy tàggatoo ñu lay déglu. xanaa di di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gën a responsabiliser aussi les responsables mhm. di leen xamal ne ñun suñu suñu leadership wala ñun suñu idéologie mhm. mooy yar

ça ne se discute pas. c'est mhm. une question de choix. Mhm. qu'on se respecte loolu rek laa laay wax di sant bu baax di ko ñaanal jàmm ak salaam macha allah. jërëjëf Adji kontaan naa si yow. merci beaucoup Baye